léegi léegi yow dëkkoo Kaolack doo waa Kaolack lan mooy problème bi nga jékki-jékki ñu gis benn vidéo ba léegi mu ngi ci YouTube bi waa Kaolack di la jàpp di la boulon di la kurpañ luy problème bi kon fuñ la jële politique la rek sëriñ Mboup waaw moo doon campagne nekk indépendant jàkkaarloog moon jaay raxma kooku waa APR la booyi Medina Baye ànd ak ñoom man ma mën ci politique lu kenn ci ñoom ndax maa dégg langage su sëriñ maa mën a wax ak ñoom maa xam fii métti ma di fa jëm ma gêné ñu teg ay proposition ma bañ nekk ci sëriñ bu ñu dem ba ut pexe mënuñ koo am ñu boole ma ak ay xale ñu ñëw sosal ma ne maa tooñ seen baay est-ce que seetlu nga dara 2020 la loolu xewoon xaw ma 21 wala 22 ba tey mosu ñoo wax kàddu gu ma wax seen baay di ko jóg pour ba tey yow musoo ko gis kenn mosu ko gis ça dire que amul dóor yi gis nañ ko yi jégg nañ ko gis nañ ko jéggalu bi gis nañ ko mais fan laa tooñee kenn mosu ko mais mais dañoo ne da nga manqué respect seen bàyyi daa mel ni seen waajur nangu naa loolu mais anamu waaw mais xëy na xëy na xëy na filmé wuñ ko woon parce que ñu koy wax xëy na amuñu woon temps pour di ko filmé yow waxoon nga dara seen bi seen ki jàppee seen sëriñ la am na kàddu yoo yëkkati woon wax ko yan kaddu la yu ñaaw la pour yow wala da nga génnoon kàddu conseil wala lan lu xewoon fan. mais ba tey la kàddu foofu rek la moom laa tax yow mii ko waxoon nag yan kaddu nga yëkkati woon. non man li ma mën a tontu mooy li ma def waaye lañ ma waxal ka ko wax a koy tontu mais du man parce que xaw ma mu mel ni ma ne la yaa ma waxoon nangam da ko mën a tontu que xamoo man mi ko wax dafa mel ni man bu ma delloo ginnaaw dafa mel ni seen baay dafa am kàddu bu mu wax yow nga dindi kàddu yooyu mel ni kuy weranteeg seen baay bu ma juuma non ñoom seen papa dafa waat ci yàlla ne ci APR teg bu gañewut moom bàyyam juru liberté la mu wax loolu man suma estati ma ne le 23 yàggul ngeen toog déglu yàlla non dem suma liberté la. mooy mooy li ma wax dafa mel yow da nga diingat seen papa loolu moo leen neexut kon. non diingat da tudd sa baay. wala nga def sa photo baay wala nga tudd sa turi baay. le 23 yàggul incha allah ku bëgg dëgg xam na ne tooñ la. du dëgg du yoon te ba pare sa baay su toogee publiquement dinga ko yow doo bàyyi jàmm. am nga duñ lay dinga dafa tax sa doom yi di dóor kenn. Mm-hmm. Sonko bi chaque jour du doo du bàyyi jàmm Macky Sall du bàyyi jàmm. Mm-hmm. mais la dul dëgg du yoon mooy sa baay bu nekkee kilifa diina wàcc si jaadaam bi dem ci politique wax ku ko fa tontu sa bàyyi politicien la ñu tontu. lu mu si lu mu si góobee war ko gar. war ko gar mais loolu tooñ la man den ma tooñ. den ko doon def ne suñ ko defee vidéo dina nopp parce que kuñ ko mus a def nga nopp man guddi googu laa defaat vidéo te situation bu ñëw rek seet naa lu ma ci génne. vidéo bi siiw na waa Pastef bi jël ko politique ne réew mi amul loi man ma jaar ci utaale ci suma bës jaay sumay garab parce que nitu intérêt la. waaw ma dóor vidéo kon yow boobu da taal. bien sûr. ah mais taal yu mel noonu métti na di ay taalu kurpañ moom kenn bëggu man de ma tàkkee noonu nag. ñu may kurpañ pour ma tàkk. non man bëgguma waaye dama bugg nga déglu bu baax ne su yàlla dogaloon ci yow ñu jàpp la dóor la ba pare nooy def. Ah. la wax ji nekk jàpp neen ma ci lu ma mooy yëgul tooñ neen ma dóor neen ma ba xotti suma yére vidéo neen ko publié ne ko léegi lan laay def <laughs> nanditema da ngay jël situation boobu muñ ko benn wane ci sa ngor ut ci sa intérêt parce que noon bi daf ko publier pour nga mer ba tey ku la mere sax day indiwaat vidéo ba pour nga mer mais yow fexeel kontaan ci vidéo bi ma jaay ci sumay garab ut ci plateau ca laa njëkk a toog Walfadjri ca laa toogee DSS ca laa demee TFM ca laa demee RFM wax ci suma soxla jaay suma bopp la vie continue. mais mais mais mais daa mel ni dóor ya safuloo ndox bu sedd de daa mel ni wexoon na kaane lool waay ñu ma la gisee woon ci vidéo yi. mais dóor. nee nga wóoy. non wóoy sax ni nga ko defee ni dafa yomb yokkuwaatal bu baax ma xool. wóoy. non bii tam dafa sedd du di. wóoy sama ndey wóoy yooyu wóoy. xam naa way way way way may leen ma ndox may leen ma ndox. non leen ma ndox bi baru toon. mais ñaan nga ndox de. <laughs> waa ji bu toll nii yow. lay ko faj yooyu ana say loxo. mais ku la mën bu lay duma yu. mais nga jéem nga gis muy fi toq tànk waa dëgg la. ah yow ponkal bu toll nii yow ay nit jàpp a wuy wuy déet nga ne may ma ndox. waa dama doon soxla ndox parce que nit laa dama doon. waajal non non mere naa la trop waaye. non dama doon. waajal non bu mu amati de bu lay dalati si kaw suuf nit di la kurpañ mbëkkal wala màtt wala tëflit ko ñu xam ne def na geste. waaye ñu lay kurpañ de toog yow même sa doom boo koy door tey di nga gis papa xët séeréy papa wéyeyoy papa. mais ponkal bu toll yow ñu lay aaree nga toog may ma ndox may ma ndox maa ngi xam. mais bu mu la dalati waaye. ok fi nga toog noonu di ko wax. waaw yomb na trop ah parce que da nga toog sa kër. Ah, situation bi nu mu demee woon la kon. non maa ngi ñëw. ñëw toog sa kër naaj. di expliquer lu dalul sa yaram. dalul sa personnalité. moo tax tu es à l'aise parce que du yow. waaye man mañ jàpp ma. deux heures de temps. ñu lay dóor kenn yërëmu la ci. ay kilifaang seen ginnaaw sa bakkan bu deewoon nañ ko waxee mi dina bàyyi la dara du xew situation bi dina wuute ñu ngi koy waxee yàlla baax na léegi pause foofu tuuti gars yi. ok seex bi. waaw ñu jékki-jékki Kaolack ba lañ la xamee nga jóge Kaolack nga ñëw installé wu Dakar bi nga ñëwee Dakar loo doon loo doon def Dakar bala jóge wu Kaolack installé wu Dakar waaw wax nga dëkkoon Kaolack demoon. dakaar laa dëkk. ok. sëñ bi waa eggalin Dakar nga nekkoon. Dakar laa dëkkoon sëriñ boobu di élection ma jugee fa dem jàppale ko Kaolack loolu moom yóbboon Kaolack ci la incident boobu am ma jugee la ñibbiwaat Dakar boobu am naa suma appartement Dakar. ok boobu man 2019 laa ñëw Dakar. Ah. lii mu ngi xew 2021. donc nekk naa Dakar ba casé wu ba nekk ci jàmm ba am ay relation bay dox suma soxla ma jugee Dakar dem campagne yi Kaolack wala ñun suñu mbokk amee ma jugee yow yaa ngi woon Dakar. Mhm. sa liggéey Dakar la woon wala mooy comme yi nga doon waxee ñaanalaa tey la wala yooyu dem foofu laa commencé waaye bi ma ñëwee dakaar deux mille dix-neuf may ñaanalaate man nag dama mus a xeeb weexalu sénégalais ak gambien dama ko mus a xeeb. Ah, dafa néew. dafa néew ba pare dafa ànd ak yabaar. Ah, dañ lay benn dañuy ñëw toog ci yow na la defal ma ba ma gis fay la. <laughs> defal ma ba ma gis fay la ku la ko wax manque de confiance am na muy benn. yaa benn. ñaareel ba dañuy toog sa kanam. na la dem naa ci sëriñ bari amul ñetteel ba danga leen di laaj deux cent ñu ne la amul nga laaj leen saraxu un million ñu génne mooy na sarax leen gën a gëm ci yow nit ci la croix sénégalais ak gambien ku ma ciy ñaanal yàllaay tax mais bëgguma sa dërëm man Nigéria ak Maroc laa daan wutee client ok mais Sénégal moom match laa fa liggéey football pare ci. match la jënd suma billet di dem Nigéria di dem Afrique du Sud di dem Égypte di dem Maroc di toppatoo suma bopp su ma demee tibb ay million bu ma ñëwee toog lekk ba mu jeex ma wuti waat nii laa doon dundee suma guddi jëkk yu Ndakaar ma créé fa nag. réseau bu dëgër këj biir ndakaaru man réseau boo xam ne ba tey sénégalais yi xamuñu fréquenté ma taxul nga xam wax ak man taxul nga xam xaritoog man taxul nga xam te biir Dakar laa ko créé ñoom ñu ci bëri mën nañoo fexe doo xam ne xamante te su métier ba lépp ñu koy waxtaan ok ok léegi yaa ngi Dakar yaa ngi doon ñaanal ay Sénégalais ay Sénégalais ak ay Gambien mais jékki-jékki gis na que ñoom daal dañoo yabaate ngay liggéeyal ay naar ak ay marocain loolu yaa ko doon dund. ñu jékki-jékki rek ñu ngi lay gis ci réseau yi ngay wax ci politique lu waraloon tey nga jékki-jékki rek commencé di communiquer ci politique di wax tolluwaayu réew mi di wax yenn jafe-jafe yi di am ci réew mi lan moo la poussé si loolu. bi ma nekkee sëriñ bi ñaanalaate ca laa dem Nigéria may ñaanal benn ministre suma biir bi di nit dama problème mu ginnaaw ba toogee suma ginnaaw bi day nit ci la ma jox garab ma naan ko laare taxaw ba a tëdd loolu laa xamanteeg àndala buri ñëw di ko jaay promouvoir àndala buri nag moo ma dugal ci wàllum waxtaanu sexe bu taxawee bu tëddee boo nangamee parce que suma produit ci loolu la jëm. loolu dinañ ci ñëw dinañ ñëw si Andalaburi et cetera. ah exact politique bi parce que Andalaburi moom xam nga ni si ñëw nag wax dëgg fa yàlla parce que sama classe gi yëpp soxla nañu bu baax bi. léegi non dama la bëgg expliquer ne. waaw. diggante sëriñ bi ak politique bi Andala daf ci dox Andala ñëwul après politique. Andala bi dinañ ci wax waxaat si wax si ba tey jii it lu raw Andala xam naa ne yaa ngi koy waaj mais tey dañoo jékki-jékki gis gis la si YouTube bi ngay wax ci politique bi ngay jékki-jékki di naan peut-être Macky Sall lu ma liggéey ci réew mi Ousmane Sonko peut-être baaxul ci réew mi lan moo la poussé tey ba nga jékki-jékki osé rek ne Macky sàll mu ngi liggéey Ousmane Sonko lan la lan da nga jékki-jékki sa yaram laaj ko wala foofu laa lay mooy mooy li ma la wax dama nekkoon ci àndalaa bi di wax di jaay suma jaay Baye Assane Mesere invité ma Solution TV hmm. moom mu laaj ma question actualité question actualité bi laal dàmpulu beeg Adji Sarr auto ma wax ci suma xalaat suma xalaat moo doon gëmuma ne Sonko dafa viol waaye dama gëm ne laal na te li ko Adji Sarr waatut dafay gën a dëggal tuuma buñ la tuumalee nga waat seetal nga tuuma ma dem fàtte naa sax li ma wax ñu dima dagg di ma saaga ndey di ma xas saaga ndey yooyu ak xaste yooyu te man dama mën a fayu man dama dama ma neexee mm-hmm. may defanteeg ñoom ba doon noonu Sonko politiquement waaye maa ngi lay seede ci yàlla ne Sonko laa gënoon a jege ni ki Macky mais ay nitam ñoo la def lu ndaw lu ñaaw nga mere leen ne xaaral nga attaqué ki tax ñu lay attaqué kon ay nitam ñoo ma def lu rëy lu ñaaw ndawut man su ma waxee suma idée waruloo saaga suma yaay du lu ndaw waruloo saaga suma pap waruloo maa saaga man lu nekk ci public ñu di ci wax man ma wax ci suma xalaat tontuma sa xalaat mais waajur bokkul lii moom ci ànd ak sonko ci àndul ak sonko war nañoo xam ne wax sa xalaat ci politique boo yemee ci xalaat rek saaga ndey bokkul lu rëy loolu leen ma def loolu moo ma def contre sonko xam nga nit lu muy bëgg bëgg da koy bëgg lu muy bañ bañ la koy bañ ma mujj saa yu ma génne rek tiré seen kaw su ma génnee tiré su ma génnee tiré donc tiré boobu ma doon tiré ci Sonko attiré attention ñi ànd ak Macky Sall ci politique ak ci réseaux sociaux ak ci la François Hélène invité ma laay fa ma waxtaan fa ma gis ne am na lu ma jural Californie Sall invité ma laay fa ma waxtaan ci ma gis ne am na lu ma jural ma ne fii nooy na fii baax na ci laa nekk ci mati waaye balaa patriote yi doon ma saaga suñ ma saagoon dañuy xëy ma dem ci boori sopp ndax man moom laa bëggoon moom laa gëm tey laa mu wax ni suma ko hmm. te ñi ma xam dëgg su caméra yi wàccee xam ne ni kii du noonu sopp mais ku ma ñoppati man dama lay màtt soo ma màttee ma dagg la donc li nga li nga doon attaqué Sonko yëpp à cause de ses ay nitam ñoo la ko poussé moo tax. bien sûr ñoo saaga suma ndey ma saaga Sonko. Hmm. te ko tuubuma ko. ba tey nii nii nii maa ngi wàcc ay vidéo parce que dañ may saaga ngir Sonko fa laay màtt rek. waaw loolu ma poussé woon may dal Sonko dama bëgg mu leer. Hmm. lépp lu ma doon wax Sonko. démb. rëccuwuma ci ville ngir tuubuma ville tey laa gën a insister ci loolu ndax mosuma tudd ndeyam te duma ko mën a tudd. musuma tudd bàyyam te du ma ko mën a tudd mais politique acte bu mu def ma mën koo saboté saboté du dugg ci jabaram ay doomam loolu du bokkul ci politique loolu privé la mais jëmmi Ousmane Sonko la muy wax la muy def moom duma ci noppi moom fépp mu ngi politique rek maa ngi loolu moom Sonko dama bëgg nga xamal ma ko ku ma bëgg dama bëgg nga nangul ma lii comme man ni ngeen bëggee sonk ni ma leen ko nangulee te su ma yoon nekku ci man musuma wax suma nit bàyyi Sonko du suma donc dé dicté man lu may def loolu moom kenn amu ci dogal te xaritoo dafa am fu mu yem mbokk dafa am fu mu yem. d'accord yéen du ma sawar kenn ci yéen ok ñu gis nga toog sa YouTube wala sa Facebook di live di wax nit ñi commencé di la déglu nga jékki-jékki am kàddu yoo fi waxoon bay dem sax naan mbokk préservatif ya dañ ko war a séddale si jàq yi nit ñi jàpp ne que loolu c'est trop parlé ba tax am. ONG yu jógoon rawatina Jamra Mame Matar Gueye porte la plainte taxoon ñu teg la loxo tey noo dundee loolu est-ce que gisoon nga ni loolu war nañ la si mën a porter plainte wala dañ la si waroon woo waar la si wala est yow yaa ngi regretté kàddu yooyu nga yëkkati woon wala tey regretté woo ko sa dëgg nga nekkoon bëgg naa nga leeral bi si loolu kàddu yooyu bu démb doon tey dama koy waxal rëccuwuma ko tuubuma ko te bés dina ñëw doomu aadama yi yegg foofu Kaliphone xam-xam yi du benn te du tappale gis nga même nit ñi nga xam ne dañ may bëgg a diaboliser dañ naan moo fi waxoon ñun c'est le xam nga tax ñu koy wax pour tout ce sentiment sénégalais mais niveau bi may yegg man ci xam-xam ba wax loolu ñoom mënuñ ma contredire parce que amuñu mécanisme yi bagage yi kaay ma wax la baatu jumaa mooy mbooloo ci mbooloo di daje mooy jumaa masjid mooy fu ñuy sujjootalee yàlla waaye ni jumaa tudd dëgg-dëgg jullit bi ba tey xamul baati jumaa ni mu tudd ba tey jullit yaa ngi jullit di dem ak ñëw màgg ci lislaam xamuñu jumaa juróom la ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam daan def benn bu ci njëkk daf ci daan jàngale li yàlla wax ak moom li muy wax muy alquran ak hadisu nubuwwa am na jumaa yoo xam ne sañoo faa dem jàngale mais yow am nga droit en tant que jullit dem Masaalikul Jinaan ubbi bunt bi di jàngale sa benn hadis jullit di déglu am nga ci droit boo ko defee ñu ne la ci biti dañu tëj jumaa ji loolu du lislaam jumaa palaasukaay jàngale la jumaa la yonantu daan àtte moo doon tribunal yi jullit ñi tey ku mel ni Modou Lo ak Balla Gaye ni ñu toll ci làmb tension mën a jug buñ amoon problème ci làmb jumaa leen leen di jubalee buñ demee noddukat bi ne noppi leen imaam di wax li yàlla wax di giifal nit ñi ba julli jot ñëpp jàpp julli buñ sëlmalee rek xol ñu nuy wante ku nekk dem biñ bàyyee jumaa ji les jullit yi di yóbbu wante gendarmerie ak tribunal mais buñ toppoon protocole juma yow doo ma yóbbu gendarmerie man duma ma la yóbbu gendarmerie ndax lépp lu ma lay tuumaal mën neen la woo ci kanamu imam bi mu teg loola kaamil waat loola en tant que jullit doo ñeme di nga daw wala boo waatee yàlla dina la dóor bañ xam ne dóor na léegi nag jullit ñi bàyyi jumaa di ci régler seen problème moo tax jullit ñi léegi ñaata rapport ñoo toog tribunal pour sëñ ñu war a tas ci en tant que jullit ñu takkee woon ko ci mu war a tas ñuy xaar juge ak procureur boo xam ne la muy attee du alquran te ba ñuy takk alquran a takk mu ngi tooñ lislaam mi ngi jooy te kenn naxut ko ñëpp a ngi koy dund romb ko muy dem beneen ba ci tegu information yi ci jumaa ji leen ko daan joxe buñ jullee ba pare yonentu di waare nga ne ko yaa rasulullah dama am kàddu nga ne ah man de xare bi ñuy waaj de Kaliphone Sall a ngi fële ak Cheikh Ahmed Cissé di xool nii di xool naa ñu ne Kaliphone nan la mel ñu ne kalifon ku njool la la kooku fekk mu ngi kàpp benn halpulaar la ñu ne Cheikh nañ la ne benn ndoxata la boo xam ne kanam gi comme dëkk bu fanaan ñu ne o oh, ok xàmmee neen ñaar ñu information yi fa leen koy joxe donc ci biir information Sénégal di réewum jullit wala réew mu jullit ñi dëkkee rapport Nations Unies génnee rapport ne Sénégal ak Gambie li fi am sida soo ko boolee ci ñaari dëkk yi dem na ba ci deux cent quarante huit mille personnes yoo xam ne ba maanaam feebaru sëy am nañ ko benn imam defut ci waare benn boroom xam-xam waxu ñu ngi toog rek waa bi sëñ Tuubaa jullee ci géej gi Maodo bind Laamiya Baye Niass mooy boroom faydu bi amuñ soxla ci loolu loolu avancé la wut suñu dund li Baye doon su ma ko nangoog soo ko bañee yow doon na ko li sëñ Tuubaa doon boo ko nangoog su ma ko bañee doon na ko du loolu moo ñuy jëriñ li ñuy jëriñ mooy xam ak actualité dund ci lañ ca war a dund wax ca lañ ca war a wax def ca lañ ca war a def et la vie continue man ma wax ne na imaam yi di waxtaanee mbirum laalante ci jumaay comme ni ko yonentu daan defee muy benn point ma ne maa ngi suggest ñu commencé di séddale protect ci jumaay ndax góor ñi ñoo fay daje hmm. góor ñoo ñu di fa daje di la déglu ngay xutba ñuy mottasu mooy Cheikh Ahmed Cissé mi nga xam ne mooy dem tëddanteeg lalu sax hmm. te xam na dafa xaraam mu jàng ko xam diine mooy sëriñ Modou Lo nga bu bay message naan ana suma xel góor ñoo ñooy toog soron waxtaanal leen ci katt mi wax leen lu tax yàlla xaraamal ko ba pare yëkkati préservatif jox le préservatif cosaanam du njaalo de it was made for safe sex mooy tëdd ak jigéen mooy tëddal ak jigéen ci kaw nga aar sa bopp dafa am benn àtte l'islam buñ taxaw islam daf ne bu ma amoon jabar tey ñuy sëy man yemuma man Cheikh Ahmed yemuma damay naaw picc la ma dem naaw tëddante ba feebar islam daf ne naa toog suma jabar ne ko man kat dama am sida may ma ma faju suma jabar moo amee volant bi volant bi moo ko yor su mënee toog xaar ma faju mu toog su mënta toog li ñu tas sëy xam-xam indil la protège nag man mën naa sida di protège di laal suma jabar say bidu taw ab xadul xalaali ilallahi talaaq kon protège solution la ci lislaam ndax dafa am atte bu l'islam taxaw te l'islam day dem protège ñëw atte bi day continuer ànd ak moom fu nekk man mën naa am feebar parce que jabar doo ko tëddee ci ñeent bëccëgu weeru koor doo laal sa jabar buy gis régal doo laal sa jabar bu fekkee ne dafa am deret bu am doom te setut laal ñeenteel ba mooy bu amee feebar buy wàlle wala nga am buy wàlle doo ko laal ndax sàmm bakkan moo gënal yàlla sàmm diine léegi nag lu la teree laal sa jabar islam xam-xam indi la protect ma ne leen ñu seddale ko soldaar yi dañ lay jàngal protéger sa réew dañ lay jox protect ça dafa di ko demal kattante ji mais nit nga bés bu la dabee ba mënoo loru yaa ngi doon soldaar protéger wul ngir bañ a feebar laalante ba pare nga téyewaat sa li tey man suñu doomi biiral yu bëri yi ma am du ma xam damay profession donc jox la ko ça ne pas demal laalante mais naa fekk ak Sénégal ak ñàkk xam-xam ñàkk sincérité ci xam-xam. ñu ne noonu waxee quoi. ah dégguñu fi nga doon waxee. non bëgguñ koo dégg ba tey nii ni ma ko expliqué nii su ma keneen mere woon ne moo fi waxoon neen séddale protect ci jumaa yi maa ko waxoon wax ju yàqu de maa ko wax ba tey te su ma amee jumaa buñ ñëwee xutba. dinaa waxtaan ci kàtt bi ba pare yëkkati pour teg séddale ma wax la dara Kaliphone sa conc bu jéggi mbaggi jullit ñi ci sàppe jumaa dafa xaram jumaa yi dañuy tëb nit di laaj àddiya fees ci jumaa dafa xaram ñu ngi koy def ci jumaa yi ñëpp ne pat laaj ah, jàngaluñ leen ko mais tey am na koo xam ne man dem naa pharmacie benn bis doon jënd benn Euh, garabu maanaam lu ñuy sinis boo sojee ma gis benn waaye taxaw rek suñ ko nekkee rek mu ne demal maa ngi sol dara ju rafet ma ne koy eh, jaay ma protect mu ne ko jox ma lu sëriñ bi jënd mënta wax sax ne protect la bëgg mais nanditement dama ko xool xam ne yàgg bi mu fi yàgg am na lu muy daw léegi ki nga jox protect enlighten ko won ko ne njaalo dafa xaram nangam ak nangam waaye soo demee ba mënoo ñàkk def protéger sa bopp lislaam bàyyiwul kenn kalifa gis nga yàlla bu yemoon ci ittaqullaha xaqa tuqaatihi man Cheikh Ahmed ak yow safara leen jëm ah. xam nga aay bi lu mu firi ah. mooy ragalal yàlla dëgg dëgg ragal yàlla attan luñ ko mag yow kalifon mënuñ ko nit leen dañuy nelaw dañuy fàtte nit ay juum mu toogaat nag indi beneen aaya ne mastataatu waaye waaye ragal ko niñ ko mënee lii moo ñu war a yóbbu àjjana mais bu njëkk moom moom qualifié wu mais mënuñoo ragal yàlla dëgg dëgg ragal yàlla ragal yàlla ci xel ragal yàlla ci làmme ragal yàlla ci bët ragal yàlla ci loxo ragal yàlla ci biir ragal yàlla ci pëy ragal yàlla ci tànk ragal yàlla ci kanam ragal yàlla ci ginnaaw ragal yàlla bu neexee ak bu métti xaw ma yow mais man mënuma sa bopp la nit ku sa bopp la xam man Cheikh mm-hmm. Ahmed ma ko. dëgg ndax léegi léeg ma jëw léeg-léeg ma fen léeg-léeg ma njaalo léeg-léeg ma tappale léegi léeg ma tardé julli léeg-léeg sax du ma julli ba kon man qualifié wu ma pour ittaqullaha xaqa tuqaati yi waaye qualifié naa ci mastataatu ragalal yàlla ni ko mënee donc ci biir lii enseignement yu riche laa joxe sénégalais bi ki nga xam ne dama ko dérangé woon politiquement. parce que Sonko la duma Sonko am na fu mu ma cottee mu ne doomaraam la day saaga diini nee na neen joxe protection ci jumaay te kat ndeyam génn réew ki nga xam ne oustaz la woon damaa ñëw nangu bësam amatul benn bayle amul xorom kenn déglootu ko ndax man la xale yi di déglu ma dégg dina dégg jamono di oyofal at yi ñëpp di rang interview yi di ne mu ne doomi xaraam la gambien la du sénégalais mais diine man kay atteel wax ci ak sénégalais la donc lii mooy problème bi mais la ma waxoon démb rëccuwuma ko de. ok ok léegi mu yóbbu la si kaso est que sa dundin kaso bi yaa ngi koy naqarlu ba léegi wala jaar-jaar la woon xamee nga fa dara danga koy sante borom bi wala ba léegi ameel nga euh, xool bu métti ñi tax nga demoon kaso. gërëm naa leen ci la ma fa xamee ak la ma fa yokk mere naa leen ci liñ ma xañ dañ xañ liberté man bugguma loolu. ñetti weer man namu pax bu ndaw bi nga teg mu benn place noonu ma ji tiim ay góor j'aime pas bëgguma neexuma. te mënoo toog ñetti weer doo doo doo kii. doo saalantëtu dara jotuma ñaanu mu ko yàlla ci àddina. ah gars yi di toog un an duñu saalantëku nag. affaire la man laa wax. <laughs> man laa wax ku ne sa bopp nga xam. ah. yàlla baax na. donc mere naa leen ci lañ ma xañ suma liggéey. xaañ ma suma liberté xaañ ma pax bu ndaw bi pendant trois mois naa leen ci loolu mais gërëm naa leen ci tooñ bi ak dugal kaso bi parce que yàlla teral dama ko teranga yoo xam ne xamuñ ko damaa génn kaso même pas trois semaines ma am visa Amérique maa ngi fii ci Amérique nekk ci beneen vie te vie bi ma nekk fii moo dàqoon bu Sénégal mais nag man bu Sénégal baa ma gën waaw Sénégal ko si àdduna bi rek même bu li ngay happiness bi doo ko dund happiness bi man Cheikh Ahmed man suma ma dund Amérique moo dàq bu Sénégal waaye dundini Sénégal moo ma gën a bu Amérique man. tey Pape Diouf suba Waali gannaaw suba Kéba. yooyu ah, ah, ah, ah yooyu doo am jot di def ko Amérique nag. ma ne ko yaa ngi yaa ngi may stress lo ah yàlla baax na eh, est xam nga ni maa lay delloo réew ma loolu benn problème. yow di nga def ba may dellu. lu lu ma am plaignant lu tax du ma fa dem lu mat da nga fa rey nit. non damay laajte rek ndax di nga def. mais mais bu ma amee soxla dem damay dem. ah bi ma amee soxla bi nga ko tënk baax na doon de. non bu ma amee soxla pour dem danaa dem parce que gisuma fa reyuma fa nit. te yaakaar naa nit xaaral dañuy dama lay bàttale bu ma dee sa suma néew bu ko kenn yóbbu. Sénégal. waaw bëggatoo kon fu mu ne nii. wallaahi bëggatuma. non bu mu la bu loolu nag déedéet ñii nekk Sénégal gë ëppale wuñ la fa tamit. dëgg la mais dew du force wala force la. non mais non mais mais mais mais ñaanoo yàlla tamit dee Amérique. fii laa bëgg a dee maanaam armeel yi nga xam ne dañ koy gason ba mu neex nekk ci jàmm man daal bu ma kenn yóbbu ñuy def suma yaram bi ay chimique di bokkati suma buti di sànni non nen ma sul wax naa ko nag. bu ma ah. dee taalal live na leen suma doom day noonu na bu ko kenn yóbbu. maanaam su ma loolu loolu loolu live bi la rek da ngay kaf nii rek mais xam nga ni ñànkatan ba ca Sénégal ak ñànkatan ba ca Amérique c'est léegi bu fekkee ne kala ña doon togg Sénégal ñi leen xa est-ce que xam nga ne togg Amérique moo dàq bu Sénégal. ah gars bu dee mën nañ togg de nañ togg moom. ceebu Amérique moo dàq ceebu Sénégal yàpp Amérique moo gën a nooy gën a ratax gën a toog bu Sénégal maanaam même jumbo Amérique même kaane Amérique moo dàq lépp fii la dàq. Ah. donc bu ñu la toggalee ceeb fii moo dàq ceeb fële. ok léegi loolu yëpp tey am na. ñu yóbbu la si kaso bi. Mm-hmm. yàlla dogal nga génnaat ci kaso bi toog. Mm-hmm. ñu jékki-jékki ma yaakaar ne dañoo ne nit lu ko rey ba mu dee bu dekkee da ko war a baax ñu gis ne que erreur bi nga defoon si man bu gaa yi jàppee ne la ba mu tax laa dugg kaso nga defaat bu pire boobu ba tax gaa yi nar la woowaat boobu nag nga gàddaay nag nga ne leen xaaral abal leen seen réew. lu waral loolu tout le temps rek ngay bëgg wax loo xamante ni day day day day tax nit ñi di kawti kawti yu ma de damaa daw. mooy gàddaay bi. gàddaay yónantoo ko def loolu dafa rafet sunna la man damaa daw den ma doon tëj ma daw ba pare daggate saaga ndey yu ma neex te réccu ma maam Maxtaar na ma ko saagee woon démb noonu laa saagaatee ndeyam tey. sa xarit la sa doomu ndey la. dem nga ah. sax ba benn jour jëndaloon ko billet màkka sama kanam mais daf tombé woon mu tawat moo tax munul def. dafay fen tawatul dafa am gàcce. parce que nga tooñ doomi aadama bu am xam-xam amoo xam-xam xale bu ndaw liggéey ci diina loolu liggéey nga duulal ko ba dem tëj ko kaso mu génn terale la biir ngoroma ko mënul day fen waaw waxu dëgg mais dama ma ne donc maam Makhtar Gueye soo gisee delluwaatuma ci saaga yi ña may déglu laa ormal mais du moom hmm. saaga ya ma ko defoon démb ci ndeyam ak bàyyam tey laa ko dolliwaat maanaam maa ngi. fépp saaga da nga meroon. loolu da gis ne dala teg lu lu teguwut dala singali. daf ma singali ma saaga ndeyam rek maanaam dama ko def rek pour seddal suma xol maa tay de. non mais mais bu doon nga que gis nañu xaalis ba moom si boppam mu ne fondateur nga léegi. dama ko doon tëgg linjaa rek moom dul kat la man man man nitu intérêt la mais xam na ne organisation bu mën a fen boobu duma ci mës a bokk mais dama doon woon sénégalais ne kii du dara yaa ne dama bon yaa ne kaso la mérito nga tëj ma yaa ma tëj ma ñëwaat bokk nga accepté ma te changé wu ma yow lan nga doon xeex lii rek laa doon won sénégalais mais mosuma <laughs> gis naa gis naa mu jafandu si ñaar fukki junni yi de moom waaw waaye mu jigi fay na ma ko de delloo na ko de ah, bañ a delloo. ñaar fukki mais yow tamit nooy jëndee ay carte de membre ba ñu may ko ay nit nga xëy ko wax tamit. maanaam message bi laa bëggoon mu jàll. ki nga ne baaxul. naan day namp day tëddee saaga yàlla. ba nga tëj ko. moom ak ñim àndal juróom fukki yu mel ni moom jënd carte membre nga nangu. ngir benn cent mille franc nga jaay jàmm. est-ce est que gis nga logique lii rek laa doon woon sénégalais. maanaam ci la dafa kon kon ñoom boo amee xaalis rek. doo am problème ak ñoom. Californie yow sa kër waxuma Jamra de ak taxawal lislaam sa kër di nga fa jàpp sàcc dem tëj ko kër sàcc bi ñëwaat nga bàyyi kër gi juróom fukki xaritam yow. waaw Mame Matar Gueye loolu la def moo lay wan ne organisation dooméram la mais di organisation l'islam beneen bi organisation l'islam ñaari atte rek la am mooy alquranu rabbi wa sunnatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais organisation bi récépissé lay atte récépissé bi constitution Sénégal moo ko jox constitution bi ay xiifere ko defal nan la l'islam di sukkandikoo ci constitution ngir yar doomi l'islam ça c'est faux naa ko sénégalais ba leer seen yoon nekk ci parce que Mame Mactar Guèye bu doon Californie ñu takk rajo yëpp bu doon Cheikh Ahmed ñu takk rajo mais parce que c'est Mame Mactar Guèye seen yoon nekk ci léegi ñu gis Cheikh Ahmed Cissé la plupart mu bari boo ko waxee Cheikh Ahmed Cissé rek mu ne boobu ay waxu caga rek lay wax. ñu mhm. gis nga ñëw di di wax askan wi ay waxu awra. te nga dégg olof lool boo waroon wax si suuf munoon nga wax suuf boo bëggoon wax lii góor munoon nga ne awra mais yow dangay ngay jaar ci digg bi doo si am complexe doo si rus. ana ana ana ana kersa nekkul si yow wala la ku la laaj loolu boo ko ne lan mooy kersa xamu ko mënut a interpréter luy kersa maanaam baat bu ñuy dégg la comprendre ko mais dëgg dëgg kersa ñoom xamuñ ko ku la ko ci waxat nga ne ko lan mooy kersa wallaay du expliquer waaye man bi may wax dafa am lu ma bëgg ci wax ji ñëw ma rek wax nii ah damay marketing damay heurter pour atteindre suma objectif suma objectif mooy lan ñi bëgg wàllum kat yëpp ñëw déglu ma ma ci sant may garab te am naa suma objectif ñaata nit a nekk Sénégal ëpp ma xam-xam dégluwu leen parce que askan wu bëgg kat leen ma leen di wax kat mais bu fekkoon ñëpp a yiw nañ koy waxe jub kenn bëggul kat ku wax kat du am xorom mu ngi mel ni toogal di wax yàlla kese boole woo ci benn sëriñ du la déglu benn Sénégal maa ngi lay wax lu garaaw te dëgg la de. perte moo ëpp bayre yàlla Sénégal. Hmm? bëgg benn oustaz muy wax ci yàlla rek ak alquran nga xool ñaata vie ngay am. du bëri bu subaa nga invité ma ñuy wax ci kat nga xool ñaata te ñëpp sénégalais làkkuñ chinois de. Hmm. man ak yow làkkuñ français làkkuñ espagnol ay doomu sénégalais jullit ñoo ñu seetaan waaw dee réew mi den yiw luñ ma xoolee. man maa daan am nga interview ma si site yëpp bu ci gën a tuuti am cinquante mille ñuy seetaan di sii ko ko yóbbu te laa koo ne Cheikh Ahmed Cissé mu ne la caga la mais bu doonutoon caga ba seetaanu nu ñu xamee ne caga la. waa mel ni caga man koo tudd mu ne la caga te ni nga ko waxee moom moomu bu doonutoon caga du ma seetaan parce que waxi caga laay wax caga rek ma mën seetaan. ok man dama doon heurté di def marketing tama xam sénégalais yi dugg seen psychologie xam lan mooy dox ma nekk te dafa dox ci man ok